Touba nag léegi dafa nekk réalité ci biir Sonacos maanaam dafa nekk réalité ci biir Sonacos yaakaar naa ay téeméer ak nangam ci ay bërëb yu nga xam ne ñoo ngi fay xollee gerte euh, wala ñoo fay segal gerte plutôt pour am diwlin euh, ay bërëb yu bari yu nga xam ne ay waa Touba ñoo dem bitim réew jënd ay matériel indi leen pour investir fii te loolu dafa am solo ci euh, koom-koomu dëkk ndax au delà de koppar yi nga xam ne ñi fiy liggéey mën nañ ko faa am. mais unité boo dem am na ay doomu waa Touba yu fay liggéey. ñu nga xam tey bu unité yooyu amul woon xamuñu ñoom lu ñuy def yu fay liggéey ñu leen di fay. am na ay jigéen yu nga xam ne dañu dëkk Touba yu nga xam ne seen activité mooy loolu la ñuy for ca foofa moom la ñuy yóbbu seen seen donc dafay développer économie économie dëkk bi donc ñun duñ mën lu dul euh, encourager lu mel euh, lu mel noonu jéem leen aussi jàppale. mais li leen di li ñu leen di ñaax rek mooy. ñu yokk seen i investissement waaw ñu yokk seen investissement parce que gerte moom du fi jóg gerte Sénégal gi moom gerte jógoo ko fi te comme déjà yéen am ngeen ci expérience bu nga xam ne yeneen dëkk yi amuñu ko bu leen xaar ba yeneen dëkk yi dab leen ba fekk si leen ci li nga xam ne moom ngeen di def yéen jéem leen a yokk jëm leen a jëm ca jëm ca jëm ca jëm ca kanam alors léegi nag bi ñu duggee Touba ba léegi ñu ngi njëkk a jaar barabu sëñ Abdou Karim ak bu sëñ Fallou fekk fa ñuy def euh, décorticage ak ay équipement yu mucc ayib euh, yu yu yu moderne euh, ak liggéey bu set ñu jóge fa dem ci barabu sëñ Abdou Sow mhm. moom itamit fekk ko mu dajale ay jigéenam moom tamit di def liggéey bu bu am solo c'est vrai que signalé nañu fa gerte yu nga xam ne léeg-léeg suuf si daf ciy dugg daf ciy rax donc weer wu jot am na lu ñu leen war a war a jox alors la ñu tënkoon ñoom itam mooy lépp lu ngeen jaay ci huile day dem directement ci keesu ay fifsi lépp lu ngeen jaay ci ràkkal euh, noonu même dëwlin bii nga xam ne dañ koy raffiner ca Ndakaaru parce que huile bii bu ngeen ko jëlee Touba bu demee Ndakaaru dañ koy raffiner pour mu duggaat maintenant euh, ci huile de table. yooyu yooyu noonu 70 euh, pour cent yu ñu ca jaay ci ay fifsi la jëm donc Sonacos noonu noonu lay dundee alors moo tax. ma doon wax léegi ñoom euh, ñoom ñoom ñoom ñoom chef de service ñu àndal may leen dafa dëwlin baax na mais souvent procédure dëwlin dafa yéex am na yu ñu jaayoon ca début départ ba tey ji ñu may wax di ma soññi naan ma AFTC mu ngi laaj alors que ñu procédure yi dugal nañu document yëpp ba nga xam ne waroon na dem ci keesu AFTC te njaayum gerte mi nag njaayum kemb gi dafa nekk lu nga xam ne euh, moo xam bojj sol la moo xam kemb la moo xam nangam dafa nekk loo dafa gaaw waaw te nag ku nga xam ne dafa war a fay bor te mu gaaw nag vraiment euh, il faut ñu yokk aussi njaayum gerte mm-hmm. loolu njaayum kemb mi njaayum kemb mi il ñu yokk njaayum kemb mi ba nga xam ne li ñu suñuy échéance AFTC daal daañu ko mën a respecté dootuñu amati benn problème parce que loolu c'est du cash dugal ci compte AFTC bu ko defee ñu parce que bu ñu bu ñu bu ñu konnew di leen fay campagne dina jot ñooy leen financé leen ñu duñ ñu financé donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu gis ci fii ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñu ngi sant ñëpp di gërëm euh, waa Diourbel nga xam ne ñoom ñooy coiffé fii ah, ci ni ñu organiser visite bi xam naa ne am naa fi ay mbokk am naa fi ay xarit yoo xam bëggoon nañu ma dem ci seen place su liggéeyukaay mais xam nga ay téeméeri téeméeri unité neexul neexul wër mais wër nañu tey yenn unité beneen yoon bu ñu amee jot daañu ñëwaat ñu demaat euh, feneen. sant di am mbégte euh, ci suñu gan yi nga xam ne euh, tey ñoo xëy seet suñu muy le directeur général wu Sonacos Modou Fada ak délégation bu mag bi mu àndal tey ñu ñëw fii ci siège Rasiaat ndax kuréel gi nga xam ne moom mooy Rasiaat moom dafa signé partenariat état huileries yi. depuis boobu nag ñu démarré liggéey bi fii ci Touba di liggéey ci wàllum nal dawlin li gerte trier bo jël écart de triage yi nal ko keb gi comme ni ko DG waxee léegi euh, ñu ñu jaay ko lu mel ni ay société yoo xam ne ñu ci biir réew mi parce que ñun sunu combat mooy euh, matière première kenn war ko exporté lu ñu bëgg mooy bu Sénégal bayeetee ba noppi euh, ñu jël gerte gi liggéey ko ci biir réew mi jox ko société bu mel ne Sonacos nga xam ne société national la mu raffiné leen li jaay ko ci biir réew mi nit ñi di consommer huile d'arachide li ci des Sonacos jaay ko exportation muy huile brute bi ràkkal ji itam ñu jaay ko industrie yi nga xam ne ñoom ñooy def aliment de bétail ci biir réew mi su ko defee doomi réew mi di ci liggéey euh, tey nag dañuy sant yàlla bu baax parce que Rasiat mi ngi doon liggéey amoon partenariat ak Sonacos waaye alhamdulilah bi nga xamee ne euh, le nouveau directeur général ñëw na muy monsieur Modou Diagne Fada muy ku yàgg ci secteur bi xam gerte wax dëgg yàlla renforcé waat na liggéeyu Rasiat mook équipe bi mu àndal yëpp euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que bi mu ñëwee li mu wax dafa am solo ndax daf ne bëgguma ndox mi fekk fi gerte gi loolu nag ku xam gerte dëgg-dëgg doo bëgg taw bi lu mu gën a ñëw di fi fekk gerte gi gerte gi di gën a euh, yàqu defe naa chaque année bu Sénégal bayee li muy bay am 1 million de tonnes wala 1 million de 400 ton war nañoo def euh, góorgóorlu ba nga xam ne balaa nawete ñëwaat gerte googu ñu liggéey ko ci biir réew mi doomi liggéey doomi réew mi liggéey ci euh, loolu nag monsieur le directeur général ñoo ngi ciy dalal sa xel di la wax ne ñun waa Rasiaat ak ñi nga xam ne ñooy xolli gerte engagé wu nañu ba bépp contrat boo xam ne am nga ko euh, ci bitim réew muy wàllu huile euh, brute bi euh, incha allah danañu fexe ba matal contrat yooyu daañu jël gerte gi daañu ko nal fii ci Touba liggéey ko liggéey bu mucc ayib ak contrôle bu sévère bi nga xam ne maa ngi koy def ak waa équipe bu Rasiat SA muy direction monsieur le directeur général taxaw ne sama wet sëñ Baara ak Ousmane mi secrétaire général bi incha allah daañu def lépp lu ñu man ba nal gerte gi euh, indil diwlin gi Sonacos mu mën koo exporter euh, leneen li ci desit ñuy invité euh, sunu mbokk sénégalais yi ñuy gën a def consommer local parce que huile d'arachide du ma jug di ko wax moom moo gën ci huile yi